wax pour nit ñi xam ne kat ñàkk moom rek lañ am pour mën a génn ci jàngoro ji yi loolu je crois que danañu danañu danañu ko def euh, ci ci fan yi di ñëw peut-être tey wala suba au plus tard ñu créé comité bu nga xam ne ni comité bi mooy suivre mbir asalaamaaleykum am a yi ñuy seetaan ci Kadiom TV amati nañu mbégte janowaat ak yéen comme ni ñu koy defee saa su si suñu jotaayu programme tey nag dañoo wàcc si mbedd Kaolack yi fas ne waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di doomu Kaolack waay ginnaaw rek euh, bu vaccin bi waddi ci dëkk Mbossé Kumba jigéen ñu fas yéene nag xool euh, ndax askan gi ana na la ñu jàngatee li ni mel euh, comme nag ñekk yi nga xamante ne rek daal dina tàmbali nag fii ci dëkk bu Kaolack ñuy laaj rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu safoo waaye itam ñëpp ñoo xamante ne rek ñoo fi yeewu la ñu jàngatee bi mbir ñu wàcc ci mbedd Kaolack yi sama caméraman ñu dem. di leen di wax ne daal. mbas mi toll na foo xam ne nañ jéem a sensibiliser nit ñi surtout ñun ñi nga xam ne ñoo bàyyi parent yi ci kër ga di dem ak a ñëw waaw sonn nañ te fi mu nekk nii li li président doon wax ne l'heure est grave l'heure est vraiment grave nañ leen def benn effort sensibiliser ñu ñakku ñu mun a feebar bi ñu mun ko xeex mu jóg fi parce que ñii naan lii ay naxe la daf leen dalul mbaa mu dal mu jege mais Europe la mu fay def ñun ñu fa am ay mbokk xam nañ ne feebar bi du ay naxe nañ leen jéem a pare vacciné néew mu jóge fi ñu jàll ci leneen. ah man de sama sama gis-gis daal lu baax la parce que ñoom ba temps bi nga xam ne dañoo découvrir ne feebar bi am na depuis décembre 2019 ñoom moo waxoon depuis de d'ici un an dinañ dinañ trouver le remède pour pour pour la maladie ah, donc comme que def nañ ko ça fait un de cela. Euh, vaccin bi ñëw na kon man gisuma ci inconvénient vraiment man gisuma ci inconvénient. kon yéen jàpp ngeen ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jeunesse bi euh, seul le vaccin peut éradiquer la maladie. pour moi. c' est c' est ça vraiment man gisuma inconvénient pour bu nit ñi dem vacciné wu ah man à ma à ma propre personne man bu ñëwee bu fekkee ñun boole la ñu ci ñun ñun les jeunes ma wan waa demee comme que dañ ne première vague bi euh, c' est pour les les les les personnes âgées de 60 jusqu'à ah léegi man man naa gisuma ci gisuma ci gisuma ci. ah man maa ngi koy xaar man xaw ma nag les autres. léegi lan ngay wax sa moromu jigéen ak góor ñi nga xamante jarul ñuy daw jarul ñuy daw comme que feebar la feebar bu fi ñëw la yàgg na fi sonal nañu ah, tëj lépp vraiment kenn mënatul dem fenn kenn amatul lenn ndax feebar bi indi nañ remède na ñëpp dem vacciné wu moo gën ñu ñu mën ñu mën a continuer suñu vie quoi man loolu laa gis. jërëjëf ñu ngi lay dalal bu baax. lay dalal bu baax ah bon vaccin yi nag moom euh, man li man jàkk daal lay laa mooy man moom vaccin moo man man moom vaccin yi vaccin moo quoi je pense que daal. man moo tax vaccin ah mais ndax en plus ma sama jàmm te vaccin yi xam nga fan la xam nga jamono bi dafa yàqu léegi quoi grand. da vaccin bi nax mbaay. waaw man na man la. kon el nga gëm feebar. bi këpp naa ko ni par hasard rek. mais mosuma gis ku ne kii dafa feebar mosuma ko gis ko dégg comprendre nga lii rek lañ ci am feebar dëkk bi ci réew yi mu ngi lëmbee loolu dong lañ ci waaw mais vaccin yi moom man el man el moom vaccin moom la quoi franchement. da bi moom ndaxee mbaay ma daal. waaw man moom gaan benn loo lépp loo dañ si dugal seen loxo pour africain yi moom man moom bokk ma quoi. vaccin dafa garaaw wax kaay ma vaccin la kaay ma faj la par force dafa dafa amul fenn garaaw kaay ma faj la. est-ce que gisu leen ne feebar bi ni mu nekkee ci dëkk bi lëmbee ko moom moo tax ñu imposer li nga xamante ne moom moo di vaccin. ah ñun feebar moom yàgg na ñëw lëmbee dëkk bi te te te day dem jaamu rek ñun ñu fi war a jël lëg lay jël waaye mais man feebar bi moom man moom franchement ay vaccin ay vaccin moom man daf vaccin quoi. ñu ngi lay a baax ok di la jégalu si dérangement bi ok merci. sëñ bi tur bi naka la. tur tey nan nga jàngatee li ne moom moo di arrivage vaccin bi ñu war a vacciner askan gi ngir xeex ak wóppub corona. waaw man ni ma ko jàngatee lenn la kese. waaw vaccin yi moom comme que indi nañ ko. ah amul forcé kenn pour man daal. waaw parce que feebar bu nekk tamit jaar na fi aussi. kum doy nga vaccin rek kum doyul nga bañ a vaccin wu. affaire yi moom loolu la rek man pour man comme koo xam ne doy na la demal fa lillahi alhamdi comme doyul aussi tamit nga te xool la doy nga nekk ci quoi parce que tamit yow mënoo imaginer paracétamol boo ko bëggoon bu fukki dërëm wala bu juróomi dërëm boo demee hôpital duñ la ko dañ la koy jaay soo ñëwoon hôpital yor cas urgent bala ñu laa laal faa nga dagg ticket loolu daal. kon yow jàngat nga ne tey ah, vaccin bi tey amul benn njëriñ. non man ko maanaam lu ñu dundee yokk ci koom-koomu réew mi moo ñu ko gënal. parce que bala ngaa teel wér gain bala ngaa du ñu naan tungu na teel na leneen lu di tëbi baax quoi parce que daal am na leen lu yu gën a garaaw daal yeneen feebar yi nañ xool ci yooyu noonu daal nuñ ko lijjantee mais pas lii quoi ñun dañoo war a sant yàlla parce que ñun ay africain lañ ñun ak ñeneen ñu duñ benn quoi man daal noonu laa gisee daal ku mu doy daal nga vacciné waaye man en tout cas man man man ama personne man duñu vacciné sama jabar duñu vacciné sama doom duñu vacciné sama mbokk waaw xanaa ñu jël sama ruu quoi kon jàpp nga ne tey yow ak lu mu la munti jaral da nga ko def ngiir bañ a vacciner. non man moom li ma waxoon démb mooy sa waxu tey li ma la waxoon léegi rek laa lay waxaat maanaam man gisuma ci njariñ daal waaw pour man gisuma ci njëriñ gis naa yaakaar naa am na feebar yu ko gën a garaaw daal yoo xamante ne si war nañ cee mën a jàpp daal waaw moom gën a taw feexe. ñu ngi la jaajëfal